إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأسأل أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني المسلمين والمسلمات أحييكم بهذه تحية الإسلام وأقول لكم السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu siwaat nañu ak yéen ci sunu waxtaan bi ñu tàmbali ak yéen mbokk di fàttali sunu bopp di leen fàttali topp yàlla ak ragal yàlla subhanahu wa mbokk yi mu mel ni dafa am lu ñu waxtaan woon tey moo am waxtaan bu ñu war a waxtaan mooy waxtaan ci biir kër yi ak yaram mu mel ni mbokk yi lii nga xam ne moo xew ci àdduna bi du ñàkk ñu wax ci ñu bàyyi ci xel mooy feebar bi nga xam ne ñu ngi lëmbe àdduna mbokk yi waxoon nañu ci leçon bi passé ne lii kat natt suñu borom la tabaaraka wa taala yàlla day mooy yëgle jamono yàlla day mooy at di wax at nit ñi ndax doomu aadama yi mbokk yi dañu dem ba xamatuñu fi ñu teg suñu tànk caaxaan gi bari na foo gi bari na di daganal lu yàlla tere li yàlla tere ñu di ci nekk mbokk yi nañu góorgóorlu te jaamu borom bi tabaaraka wa taala mu mel ni kon natt boobu di feebar bi nga xam ne coronavirus bii ñuy wax mbokk yi mi ngi gën a lëmbee àdduna mbokk yi nañu ragal yàlla te xam ne yàlla su borom day mooy yëgal jamono yàlla day faalu li ma yurid yàlla day lu ko soob mu def borom bi tabaaraka wa taala mu mooy kun fayakoon yàlla day moo naan nekkal mu nekk feebar day gàllaat boo xam ne yàlla moo koy yabale muy natt boo xam ne yàlla indi na ko ci jamono ñu ngi ñaan nit ñi di leen wax ne nañu fagaru tey topp li nga xam ne moom la docteur yi digale ci wàllu bi ñoom nattuwaay yu ñu mën a jël waaye daal li ma mën a wax mooy nattuwaay bu ñu mën a jël nañu takkoo ragal yàlla subhanahu wa taala te yërëmante suñu biir di waxal te dëgg bàyyi naafeq bàyyi sos bàyyi wax lu tegul ndax yii bokk na ci liy suñu jamono moo koy jaaxal lu mel àdduna fépp nag nga xam ne feebar bi tey tax na ba kenn talatul dara ku nekk yaa ngi tal feebar bi moo koy bu mel nii la yàlla waxoon rek yow ma yafirul mar'u min aqi wa ummi wa abi wa saahibati wa banni li kulli imri'in minhum yow may seen saanun yow nii sadaqallaahu l-aziim loolee yàlla wax ne bés dana ñëw de ndey daw doom doom daw ndey rakk daw mag mbokk yi nee na nijaay daw jarbaat mbokk yi dafa mel ni loolee day bu ñu sàgg nu ma xew sunu jamono mel ni na tey kenn ku nekk yaa ngi xool fan ngay daw làqatu jee yaa ngi xool fan ngay daw ngir feebar bi waaye ñu ngi ñaan borom bi tabaaraka wa taala yal na yàlla oyofal ko yal na yàlla teggi ko ci àdduna dindil ñu ko ci àdduna bi teggil ñu ko te ñu ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoom la yàlla dégg réew mi nga xam ne taxawaay bi rafet na gis nañu démb ñu taxawaay bi rafetee ci ñi nga xam ne ñoo bokk moom président ci langue politique mu mel ni kon addunaa ngi noonu ñëpp taxaw bokk benn li ñu bokk yéene woon mooy feebar bi jub ci réew mi ku nekk bàyyi la nga jàppoon ñu ñëw jàppoo ndax yàlla ma wax ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu na ngeen ànd yéen ñëpp ngay ci benn buum ñu siraatal mustaqim bu ngeen àndee yéen ñëpp booloo xool yi nekk benn lu ngeen song yàlla dina leen ci may ndam mu mel ni kon loolu day jëf-jëfu xew jamono la ñëpp ànd nañu bëggandoo ñëpp ànd nañ toppandoo ngir jàpp pour yàlla teggi natt bi teggi feebar bi ci àdduna bi mbokk yi loolu lañ doon mën a waaye ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali topp yàlla ak régal yàlla subhanahu wa mu mel ni kon ñu ngi waxtaan ci biir kër yi mooy yar yi nga xam ne mag ñi daan nañ ci biir kër yi mu mel ni tey loolu di àdduna dox na ba yar yooyu manqué ci biir kër yi mbokk yi day da dugg ci kër nit ñi bokk ndey ak baay kii du wax ak kii kii du wax kii lan moo ko waral ngir àdduna mbokk yi àdduna jarul dara day àdduna bii nga xam ne mag ñi dañu wax ne war àdduna bii day boo ko warul dafay ëlbati ko war la àdduna ani ñi mu àndaloon démb ñooñu ñëpp war na leen tey ku mu àndal tey jàppal ne ëllëg dana la moo a war àdduna boobu nekk nga xam ne warukaay la bu la taxee jàpp bu la taxee topp àdduna bés dana ñëw mu mas la alaa ko mu takkasulu hatta zurtumul su suñu borom mu ne bés dana ñëw doo denc ci kër këri àdduna lu ne nga toppatoo ko lu ne nga dajalee ko ba xëy ñibbi ba mel àdduna war na léeg-léeg nga ci jamono mu naan démb na ma meloon démb day bu démb doon tey ma mel fekk àdduna moom mu toppoon àdduna mbokk yi kër yaa ngi noonu ànd gi nekkatul ñi bokk àndatuñu ñeen kenn ku nekk yaa ngi dem ak sa bopp bokk dey ak baay wala ngeen bokk deret bokk benn kër kii jaar nii kee jaar nii ñu bëgg na ñun nii ay jullit lañu yàlla nee na jullit bu mere moroomu jullitam ñetti fan yàlla dana la rëbb sa benn tànk ngi safara benn baa nga àjjana mbokk yi kon dañu rafetal dëkk gi dañu rafetal ànd bu njëkk day mbokk yi nañ daan yar ci biir kër yi yar yooyu daan na génn ba ci mbedd yi léegi nag loolu amatul tey koo yar doomam mu yóbbu la ci yoon loolu moo xew ci jamono bu njëkk day mag ñi daan nañu yar yar mag ñi daan yar mooy daan nañ la xool nga xam liñ la wax te duñ la digal waaye léegi nag xale yi tër nañ déggatuñu yar kooku manqué ni ci kër gi di nga xool nit mu ne la loo may xoolee tey di waajur mbokk yi léeg-léeg nga gis doom ci biir kër romb waajuram mën na nekk ñetti fan wala ñeent du gisanteeg waajuram ci biir kër li nekk na lu jaaduwul boo xëyee yaa ngi dem boo xëyee dem nga waa bu yeewoo du la gis bu demee ñëw du la dégg kon mbokk yi lii xew ci jamono xew ci biir kër yi loolu lu yàq kër yi dañu delluwaat nag ci yar gi kër yi yar njaboot gi ñu ànd bokk nekk bokk ndey ak bàyyi ndax loolu mooy jëriñ doom yar kooku mooy jëriñ ci mbedd bu mel ni tey mbedd mi yar gi ci kër gi amatul nit ñi talatul yar njaboot gi ndax bu njëkk waajur bu jigéen danañ toog ci kër yar njabootam waajur bu góor génn dem uti ñëw indi ci biir kër gi waaye tey jamono toll na foo xam ne waajur bu góor day génn waajur bu jigéen day génn kenn ku nekk daw wuti waaye ani mooy des ci kër gi ak yar njaboot gi donte wut gi lu lu baax la waaye nag dañu xool yaru njaboot gi ngir bu ëllëgee njaboot googu nag ñu yarul ci kër yi ñoom ñooy génn ci mbedd yi tey génnal ci mbedd yi nga xool doxalin bi ci mbedd yi yar bi ci mbedd bi amatul fu waay toog def lu la neex fu waay toog nekkee lu la neex mu mel ni tey ñàkk yar googu jur na mbedd mi xale yi ne ci mbedd mi di dundee nu la neexee kon lii ngay yàq àdduna waaye du defar dañu wax ne wax ma say ndawi réew ma wax la say magu ëllëg ndaw ñii bu fekkee ne ñoom yëg nañ ne ndaw ñi ñoo war a yor réew mi kon ndaw yooyu war a dundal réew war nañu am comportement bu rafet war nañu am comportement bu yiw war nañu am diine gu mag ci jaam yàlla ci jàng ci rafetoo ci dox lu baax wax lu baax waaye àdduna lëmb na caaxaan bari na ba yooyu yëpp ñu fay ko mbokk yi nañu bàyyi bàyyi xel waaqifuhum fa innahum mas'uluuna waajur bi day na fay xel kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi waajur wu ne sàmm nga te ëllëg danañ la laaj naka nga sàmmee njaboot gi naka nga yore njaboot gi mbokk yi waaqifun fayna mas'uluuna yàlla nee na danañ la taxawal dala laaj kat mooy tax mooy sa doom ji nga xam ne yaroo ci àdduna wala doon ko dund ak moom yàlla nee na may ma kenn doom ndénkaane la ndénkaane boobu nag na ci bàyyi xel mooy lépp lu la yàlla dénk dana ko rocciwaat moom moo xam doom la moo xam kàttan la ndax léeg nga am doom am koo xam ne yàlla dénk ko ko waaye yow mi ko yàlla dénk na la ne la mu la dénk dana ko jëlaat moom borom bi tabaaraka wa taala moo tax bu la yàlla boole ci ñi muy dénk doom li jaadu nga yar li jaadu mooy nga teg leen ci yoon te yar kan moo koy def ndey ak baay ñoom ñooy yar ndax ñoom ñoo falantew ne mën nañu sëy sëy nag li koy udd yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jigéen ñi sëy leen góor ak jigéen sëy ngir ngeen am doom ngir dooleel diine lislaam dooleel diine lislaam boobu nag mi ngi aajo nga yar sa doom waaye yar bi gën mooy yar sa njaboot ci diine lislaam ndax diine lislaam mooy diine dëgg mooy diine boo xam ne dañ ko dundee fii di ko dundee àllaaxira mooy diine bi nga xam ne moom la suñu borom tabaaraka wa taala dénk doomu aadama bi ndax keroog ba nit ki juddoo ala subi rabbikum xaalu bi nit ku juddoo yàlla suñu borom wax ak moom mu d'accord ak yàlla lan mooy d'accord bi danaa ñëw ci àdduna du ma jaamu kenn ku dul yàlla subhaanahu wa taala <coughs> ci ndénkaane suñu borom boobu mooy bula yàlla dénkee na nga yar ñu doon wax ne yàlla bi mu dénkee doomu aadama bi volonté wu ut soxna eh, jigéen bi ut borom kër lan lañ ci jublu mooy am njaboot ngir doonal diine l'islam njaboot googu bula ko yàlla dénkee li jaadu mooy nga te yar doom nag yar njaboot du lekk ak naan rek bokk na ci jàngal ko bokk na ci xam ni ñuy toogee bokk na ci xam que ni muy comporté woo ci biir kër gi ak comportement ci biir mbedd mi su ko defee loolu muy jàng sa jàng wàcc xale boobu nag bokk ci ñi réew di tiitaroo ndax àdduna bi dafay jeex kenn ku nekk bàyyi xel ci àdduna bi nga xam ne kër la koo xam ne kër la buy dalal waaye kër la kun la yonent boo xool kun fi dunya ka annaka aribun aw abiru sabil yonent bi nee na may leen leen ko dund ci àdduna am lu leen yónni ngeen jël dem ay mel leen ni ku fiy sax ba faw ñu ne ko dund mel ni am luñ fiy jël te dem mooy lan mu ne ngay dund ci àdduna lu àdduna bi mën a mel du la teree jaamu sa borom tabaaraka wa taala da doy lu ci àdduna lépp loo am nga jàpp ne sunu borom lii la dogal ci yow ci sëg yeeg lu mu mënta doon ak nangul ko yàlla boo feebaree da nga nangu ne borom bi tabaaraka taala moo la teg mu ne ko waa yonent bi dund mel ni duñ fi jóg mu ne bu boobaa mais bu la yàlla maye nga tabax kër soli mbubb yi rafet jënd oto yi rafet nee na yaa ngi mel ni ko fii sax waaye bés dana ñëw inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu yëpp da ko fi bàyyi daal di delluwaat ci sa borom tabaaraka taala mu mel ni mbokk jullit ñi loolu day moo doon sunu waxtaanu tey ñu ngi bàyyiloo xel jaam yi ñu delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla buur bi mooy kenn te moo fi nekk suñu borom tabaraka wa taala lam ñu digoon du ko bàyyi ndax dafa ne alhakumu takaasuru hatta zurtumul maqaabira yàlla moomu day moo wax ne kullu man alayha fanin kullu nafsin zaiqatul mawt dafa wax ne dee laa njëkk bind dund te li yàlla digoon mooy dinaa leen jël ba ngeen jeex kon ci kaw suufam si mission lañu ñu fi yàlla yónni bu ñuy dox yàlla nee na ci kaw mission boobu nañu góorlu jaamu fi sunu borom tabaaraka wa taala te bañ a bokk ci ñi nga xam ne caaxaan rek moo ñu indi ci àdduna di ñaan borom bi tabaaraka wa taala lii dal jamono te mu tiital ku ne ay nañu delluwaat ci sunu borom tabaaraka ko taala ndax moom mooy yàlla moom mooy dindi moom mooy tege waaye ñu ngi joxe ñaan bii nga xam ne danañu dimbali ci lii nga xam ne mooy feebar bi ñu ragal ñun ñii ñëpp mu ne na jàng salaatu faati teg ci juróom-ñaari fatiha te jëy ko salaatul faati te bu ñu defee ñaan googu yàlla dinañu musal ci feebar bi nga xam ne mooy coronavirus bi ñu ragal ak yeneen ak yeneen i feebar yoo xam ne ñu ngi lëmbee àdduna mbokk jullit ñi ñu ngi ñaanal ñëpp di ñaan borom bi tabaraka taala yàlla na yàlla boole tàppe xol yëpp ñu góorgóorlu ci kër docteur yi di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla kàttanal leen seen taxawaay rafet na ñi jiite réew mi tamit taxawaay rafet na nañu góor góorgóorlu ñu ñëpp ñu àndandoo jàppandoo dóorandoo xàccandoo dóorandoo su ko defee feebar bi yàlla dimbal na ko ba faw ñu ànd jaamu suñu borom tabaaraka wa taala xam ne moom rek koy tege mooy delluwaat ci yàlla borom bi tabaaraka wa taala yàlla ñu tegg li wa axiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu wa rahmatullahi wa barakaatu.